Sénégal Sénégal mbokki amateuru lamb yi gannaaw bu mu wàccee fas jaka coy ba mu wàcc moom Fallou Ndiaye jiital Ndiaye production waa Sénégal dañoo dajaloo ne ko Fallou Ndiaye faaw nga defal ñu li ni mel faaw nga bégal amateuru lamb yi nekk ci diwaanu Sénégal mu ne aca leen fekk leen ma ci arène nationale le 27 mars 2021 bii ñu dëgmal ma ne ko Fallou sa yaram dafa tàng de fii 4 millions laay tegal mbër yi lépp nag ngir bégal amateur yi ma ne ko kan nga tuddee sa lamb mu ne kuy bégal amateur yi bi ko samay xarit samay am di jàmm ku ci mel ni Moustapha Diop ministre de l'énergie maire de Louga Matar Ba ministre des sports maire de Fatick Amadou Ba ex ministre des affaires étrangères responsable politique APR ci Dakar Cheikh Tidiane Ba Messi responsable politique à Médina Moustapha Mbeng maire de Kër Massar Aliou maire de la ville de Guédiawaye Pape Diogoy Faye directeur direct news Amadou Diagne nekk responsable politique ci Pikine ancien ministre des organisatrice Awa Diouf di trésorière fàllu ne am na ay invité d'honneur ku ci mel ni Ahmed Youssouf Bengalum borom Kaolack Nouvelle Vision ku ci mel ni Michael Fora borom Jàmmagën Sicap Mbao Fora Pape Abdou Fall président des promoteurs de lutte avec frappe ak ku ci mel ni Gora président des jeunes amateurs de lutte yéen sponsor nga àndal Ndiaye production mu ne ñi nga xam ne foo leen gisee gis fa sama bés boo ñëw fekk leen fa muy waa Best Vision ñi nga xam ne lunette courtage ñoo ci teg loxo ànd ceeg VIP fast food see Adja Degen ànd ceeg xel comme mobile ñi seen xam-xam màcc ci wàllu réparation auto ak marque bu mën di nekk ànd ceeg Ndiaye global business ma ne mbokki amateurs yi mbokki mbër yi bés baa ngoog le mars ci arène nationale ñu ànd ceeg Fallou Ndiaye jiital Ndiaye production mise ba di 4 millions francs CFA dio de soog ba fa séenee nekk ci diggante Mbaye ak Lum ak Momo Ngom ma ne arène nationale le 27 mars njar ñëw sa xol dana sedd amateur ndax li ni mel Ndiaye jërë ngeen jëf mbokki wasaare làmb ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay gis ngeen comme ni leen ko diggee sànq rek bi may jógee ci Ibrahima Ndiaye nee am na ci keneen ku jëm gis ngeen ko du mu leen ko présenté ki mooy Cheikh Tidiane Niang bokkoon na ci ñi nga xamante ni taaral nañ bés bi te teewoon nañ foofu euh, bokkoon nañ ci ñi nga xamante ni dañuy def ambiance ci làmb te amateur yi dañ leen namoon ndax bokkoon nañ ci ñu leen gëj a gis xanaa ñu bàyyi ko mu nuyoo ñu wéyal waxtaan wi Cheikh nuyu naa la. waaw Ousseyn maa lay fay. waaw euh, avant tout ginnaaw bu ñu jullee si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant suñu ñaari waajur. Mm-hmm. waaw di masawu waa Sénégal ndax c'est la première fois affaire bu mu amee ba léegi ñu ngi soog a wax si internet i te di yoon ndax war nañ participer ndax ay citoyen lañ di wax waa Sénégal yi ne di leen jaale de yi nga xam ne am neen fi waaw metti na trop maa leen di jaale bu baax a baax waaw di ñaan jàmm yàgg si Sénégal ndax Sénégal jàmm rek dañu xam. Mm-hmm. waaw gis nga jàmm yàgg ci senegal jàmm la xam dimanche bi nga yégee ne làmb am na fan la fekk. dimanche fekk na ma ñëw fekk na ma ñëw fii waaw fekk na fe la ma fekk sama gaale. Mm-hmm. Euh, dañ la gis bokk nga ci mbër yi nga xamante ni bokk nañ ci ñu mujjee ñëw mais bi nga ñëwee nga gis nit ñi dar la euh, amateur yu jóg yuuxu moment boobu mënuloo wax ak kenn mais moment boobu lan nga yëg. bi bi nga dugg see caméra yi Darma. waaw bu ma dugg see yi Darma supporters yi di yóbbu xam ma xam ne gars yi namm neen làmb trop trop trop. Mhm. waaw di leen wax ne ñuñ leen ñun ñoo leen gën a namm làmb waaw man ndax man avant may bëre sax damaa jooy ndax gars yi dañ maa bëgg te yàlla tax waaw gars yi dañ ma bëgg te yàlla tax looloo tax te tubaab daa am lu mu wax le silence parle. la mhm. fekk gars yi di ma doon dekk micro may noppi noonu sax dama doon wax. waaw di jégalu journaliste yi bu baax a baax ndax du yoon tamit ñu ñëw bokk liggéey waaw ñu comprendre ma rek waaw. Euh, mais lan mooy waral jooy bi Cheikh Tidiane Niang bu feccee jooy Cheikh buñ ko daanee mu jooy bu bàkkoo sax xol bi sedd mu jooy loolu lan la. damaa yàgg jooy làmb boobu amaguma si ñaar boobu lekkaguma si ñaar dërëm suñ dëkk foo laajee foofu dinañ la wax dama kaa yàgg jooy te boobu amaguma si dërëm. dafa fekk da comprendre ma quoi dama bëgg ñi seetaan xam tamit parce que mu leer seen nopp. <laughs> waaw pour ñu comprendre moom loolu yomb na waaw ñun man daal làmb rek moom a tax a jóg man làmb rek moom ma tax a jóg waaw. mais moment bi nga dugg see gaal gi nga gis foofu fees mbër yu bëri mu leer na ne tey euh, sénégalais yi dañoo namoon làmb mu leer na ne mbër yi seen wàllu bopp dañoo namoon làmb bi nga dugg seet lan yi yaakaar ne tey moo la war ci bés boobu. Ah, li ma yaakaar lu dul ma remplir rek am loo xam ne dama ko war a rempli ba Sénégal ñëpp xam ne man yaakaaruma tus lu dul bëre te bëre man dama kaa man de man champion la metti na woon trop dama bëggoon a wane sama bopp di jégalu supporters yi bu baax a baax a baax ndax nu ma ñàkkee demi-finale moom wax dëgg metti na mais bésu am moom bo bokkul ak bésu ñàkk mm-hmm. waaw. mais dama gis euh, ñu tirage ñu tirage ñu ne Cheikh Tidiane Niang Mbissine ñu fa toogoon ñëpp yuuxu. loolu lan la sa digganteeg Birame Mbissine. sama digganteeg Birame Mbissine sama Birame Mbissine sama sama gaañ la sama nit la adversaire la comme adversaire yi rek mais gars yi dañoo namoon sama bëre Sénégal dañ koo namoon man loolu laa sentir ma xam ne ñii dañoo bëgg gis sama bëre waaw. dama gis ñu ñu ñu ñu tirage ñu ne Cheikh Birame Mbissine nga tourné xool public bi xool supporter yi waxal ki nga nekkal dugg ci digg géew bi. waaw xam na tey bëre rek a des. dara amul lu dul bëre dara bëre rek moo moo war a am tey loolu kese laa doon xalaate loolu kese si loolu kese laa doon wax waaw yàlla far tamit may ma ndam. mais combat bi ñu gis ne dafa yomb ni ko gars yi foogee woon ak jëli bi daal kenn comprendre waaw noonu moom tamit daan na ma moom mos na maa daan waaw ji daal tey dangay daan suba kii daan loolu la rek waaw bi moom noonu la fa demee. ok waaw bi nga bi dem ba demi final. Euh, làmb ji toj. parce que am na Franc ñëwoon na Selembele ñëwoon Goro Sock ñëw ñu tous seen supporter yooyu jóg amateur yooyu jóg mu xaw a am tuuti coow euh, làmb ju toj bu làmb ji tojee sa xel ci lan la dem. waaw metti woon na trop sama xel fu mu dem ndax damaa xam ne làmb amutoon gars yi war a organiser wu bu baax a baax a baax ñu bëree ko fair play ku nekk toog seetaan mais nit ñi dañoo namm làmb ba nga xam ne ku nekk bëggul kenn bëggul dara raw ko ci làmb ji looloo indi problème bi. waaw mais du question yàq wala gars yi dañoo yabaate wala leneen gars yi dañoo nàmm làmb waaw te en plus sécurité bi tamit dafa manqué woon tuuti. mais est-ce que làmb ji xëjoon na. làmb ji dafa mag boromam. ok waaw dafa mag borom boromam. mais dafa am leneen loo xamante nii amateurs yi wala ñenn ñi nga xamante ñëwoon nañ foofu. dañ ko xaw a di ko ngun-ngunu ci suuf ma leen su ma yeggee dinaa ko yeggee Cheikh Tidiane ñu bay ne nañ Cheikh Tidiane pare amul doole est-ce que wax boobu dégg nga ko. waaw wax boobu dégg naa ko waaw ku ma gis a xam ne man pare naa ndax man yaakaaruma dara lu dul làmb man damay entraîner pour entraîner moo tax ma jóg ñu indi ma fii Ndakaaru waaw. damaa gis damaa gis ay amateurs yu bari wala ay séeréer yu bëri yu nekk foofu ñu ne Cheikh boo ko xoolee physiquement xam ne koo bi des na doole ji des na Cheikh doon na gën a pare nii affaire yi dala bett wala. non non sax. peut-être gëj a bi la rek ndax toog neen on a te compétir ñu ndax ñun moom compétir rek la ñu xam ndax ba buñ nekkee Gambie sax dañ doon compétir foofu na ñun yaakaaruñ dara lu dul làmb lépp lu ñu am rek làmb moo ñu ko ko may waaw gëj a compétir bi tam da siy feeñ torop torop. waaw. léegi ñu ñëw sa demi-finale yow ak Thiaka Faye bi ñu tirage nga ne Thiaka am de xaw a am xel ñaane décourage ne tey moom ak fi la sama làmb di am. non non au moins décourage dama yaakaaroon ne làmb ji dama koy jël. Ah, ñu ci bàyyi de biñ nee caaka fay rek découragé ba ci sama cameraman bi ne caaka ne oh <laughs> sama waaj tey ñàkk na. waaw noonu la ba demee noonu la ba demee mais man moom damaa jàppoon ne moom dama koy daan waaw. mais dañoo gis kenn xamul lan moo la parce que jàpp nga manœuvre jékki-jékki rek ñu gis Cheikh Tidiane ci suuf. damaa def lu ñorul rek ca xabal bi moo ñorul dama kaa dugal te avant ma koy dugal waruma ko woon dugal ndax moo ma ëpp rallonge te moo ma ëpp poids tamit dama kaa dugal rek mu jéggil ma benn mu jéggil ma tànk bi bi may génn si nag laa def foofu waaw moom mu bàyyi suma poids am waaw maa koy nuyu sama grand champion bu mag la quoi nit ku baax la. Hmm. bu ñu jógee ci loolu naka nga gisee euh, combat euh, diggante général Malika ak euh, Thiaka Faye final bi. waaw ah combat boobu nu ma gisee xam ne kii moo waroon jël làmb ji rek général waaw loolu la rek ndax ñoom dañ ñu ñëpp dañuy daanante suñ biir waaw yàlla moo waxoon ne général moo koy jël te général jël na ko waaw. mais comme que làmb jaa ngi doog a tijji euh, yeneen des na yeneen tournoi ndax samedi am na dimanche amaat na tamit samedi euh, Fallou njaay moo woote arène nationale teg 4 millions dimanche Jax ma woote fee nga xamante ni mooy Adrien Senghor woote fa est yaa ngi waaj pour dem foofu. waaw maa ngi entraîné toog déglu samay kilifa liñ may wax fuñ ma digalee ma dem ma dem fuñ ma digalee ma toog tam damay toog man daal maa ngi toog di déglu di xaar ba bés ba. kon fi mu doon daal xamagoo ban tànk ngay teg. waaw instant yii xamaguma ban tànk laay teg ndax maa ngi toog di déglu ñi nga xam ne samay kilifa lañ ndax ñun tamit ñu ñu joxe boobu ba pare di roo ci làmmiñ waaw. Euh, bu ma jógee ci loolu damay ñëw ci lutte avec frappe bi ndax gis nañ saison bi tijji na te amoon nga combat yow ak Ndongo Lo combat bu fu mu toll. waaw combat bi ñu si koom yaakaar naa ay côté juillet yooyu moom dina am ci li foog li ma yaakaar waaw. ok euh, bu ma jógee ci loolu damay ñëw parce que euh, su ma juumul le 4 avril ci la Eumeu Sène ak la dëggee di ba Diène Kairé Modou Anta noo gisee yooyu combat. waaw combat yooyu muy lool combat yu neex lay doon incha allah combat yu neex lay doon waaw yoo xam ne Sénégal ñu ngi koy xaar ñu doon mu doon bés bu rëy bés bu rëy lay doon incha allah. mais maa ngi leen di ñaanal rek que le waaw. loo wax ci loo wax ci Lac de Guiers ak Eumeu Sène parce que bi mooy troisième fois niil nañu ñëwaat Eumeu seen daan ko te combat bi bokk na ci ñoom ñaar ku ci daanu bokk na ci làmb bi nga xamante ni dina la pousser nga nga nga xaw a wàcc tuuti lan nga leen di wax ñoom ñaar. ah wax ñoom ñaar <laughs> ah ku nekk daal daa daa daa soxla ku nekk dafa soxla quoi waaw. <laughs> mënu ma si wax lu bari daal. <laughs> waaw waaw combat Diène Kaïré Modou Anta mu nekk laa mu jànk bu neex boo xamante ni kii di Diène Kaïré yàgg naa topp Modou Anta ba yàlla dog koo dogal noo gisee boobu làmb waa ah boobu moom ñaari ñaataangoo yu neex lay doon. Hmm, làmb boobu dina neex trop. waaw lépp loo si yaakaar rek dina si am. waaw lan nga yaakaar lu bari xëj na si lu bari xëj na si. lan nga yaakaar ne moo ko jeexal parce que ñoom ñaar ñëpp boo xoolee xeex bi bëtt na lool te dañuy bëre. lan nga yaakaar ne moo joxe boobu làmb. a ah, làmb ji man gis naa ne dina commencé si xeex daal dina commencé si xeex mais ci bëre lay jeexee. Mhm. duñu dogal duñu dogal xeex bi ku nekk daal ci la ci dangay jël sa bopp yaakaar ne indi xeex te xeex boobu doo ko dogal mu mujjee si bëre noonu man combat boobu noonu laa ko gisee waaw. laka ngay wax ñi nga xamante ni ñoo say fans ak say supporters waaw di leen di sant di leen gërëm rek ndax man moom nit ñi sax xawma lu ma leen defal waaw ndax nit ñi dañ ma bëgg trop te yàlla tax waaw di leen di bëgg di leen di masawu coono yi waaw di leen di wax ne maa ngi jégalu bu baax a baax waaw laa mu ji metti na trop yàlla moom fuy defar day mel na comme kuy yàq affaire bi day ñëw ndax man gaw ma dara lu dul làmb làmb rek laa gëm te loolu ci loolu laay dox te incha allah tamit loolu laa gëm day ñëw yàggatul dara waaw. un jour viendra gars yi fàtte li passé lii lépp waaw. maa ngi nuyu ki nga xamante ni mooy Modou Faye da bu baax baax. waaw mu nekk ci Espagne. <laughs> waaw moom sama gaañ la waaw. Hmm. sama grand la quoi bu baax a baax di bëggee waa Espagne waa sama mbokk yi nekk Espagne ñëpp maa leen di gërëm dañ may jàppale bu baax a baax ñoom ñëpp waaw suma ma limee nag damay juum ñoom ñëpp waaw dañ may jàppale bu baax a baax ñoom Talla ñoom Amet ñoom ñoom Omar fu ma limee rek juum gis nga fu ñu defee émission bi nii waaw ñoom dañ dañ ma dañ maa jaral lu ne lépp luñ bëgg man loolu laa bëgg luñ bëggul tamit man bëgguma ko waaw maa ngi leen di ñaanal bu baax a baax a baax a baax waaw di leen di sant di leen gërëm bu baax waaw di gërëm ñi nga xam ne dañ may jàppale ci làmb ji ñoom Grand Lamine ñoom Moussa ñoom Matar ñoom Momadou Kaya waaw ñëpp man nijaay ñoom Pape Momadou Faye maa ngi leen di gërëm di leen sant ak sama staff bi ak prési waaw ak ñoom Mbalu Fala ñoom nabusa ñoom Abdou Faye ak boy yi may àndal làmb tamit ñoom daadi ñoom maayen sax maa leen di gërëm ak sama ku koo xam ne dama doon ànd ak moom làmb mu ngi Espagne eto maa ngi koy nuyu bu baax di ko gërëm di ko sant ñoom ñëpp waaw bàyyuma kenn waaw. Hmm. Euh, lan nga gën a bëgg ci palaa lekk. man mbaalu saalum mbaalu saalum waaw boobu daal bokk na ci palaa yi nga xamante ne dalay daane waaw mu nga bëgg euh, taala nuy naa waa ñoonu lay fay yaa ci jàmm maa ngi ci jàmm bu baax tey ñëwoon seet si mbër lan nga ñu mën a wax ci Cheikh Tidiane Niang waaw tey Tidiane moom yaa ma gën a xam baram baax la moom wax dëgg yàlla waa waa marché bi dañ koy béggee boobu saa bu amee combat yàlla xam na waa marché bi dañ ciy sonn quoi parce que baram baax la moo tax parce que dañu ko wan ñun ci ginnaawam wax dëgg yàlla ñoo ci ginnaam saa bu amee combat waa mas bi ñëpp a tëj dem seetaani ko baram baax la loolu laa xam ci moom boobu. Euh, noo gisee keroog tournoi bi nga xamante ni defoon na ko fee ca terrain gaal gi. Ah? bi demoon bëri ca terrain gaal gi seetaan nga ko. waaw ma ko waaye damay gaa yaa ma koy wan gaa yaa ma koy wan boog seetaanu ma ko nag la woon rek. Hmm, ñu bàyyi nee nañ Cheikh dafa néew doole. non loolu noo koy jàngatee. non loolu doole de xam nga daa gëj a bi ak gëj a yaa la xam loolu moo tax hmm. waaw. soo amoon kàddu yoo koy wax di ko conseillé loo koy wax. moom mu yokk doore ji rek yokk doore ji ak contact bi contact bi saf sàpp rek waaw loolu laa koy conseillé boobu. waaw. nuyu la. Ousseyn fay naa la. yaa ngi ci jàmm ngi sant bu baax a baax. Euh, ñëwoon seet ki nga xamante ni mooy Cheikh Tidiane bëgg ak moom ba noppi di doon laaj seen xalaat ci moom boo amoon kàddu loo koy loo koy conseillé wala yoo koy lan lay doon. ah li ma koy conseillé li ma koy doole moom xam na ko xam na li ko war tamit ci muy mu yokk entraînement yi yokk doole ji wax dëgg yàlla bu dee bëre moom tëlewu ci dara bu dee bëre moom am na am na am na qualité bëre yoo xam ne nii ba léegi man gis naa seex waneeku ko sax ndax champion la boo xam ne nii dama ne ñuy takk bu làmb bëree ci làmb simple daaxuñu ko bëre te ëppuñu ko doole làmb nag day dem ba toll foo xam ne chance da ciy am surtout bëri simple bëri simple chance la waaw dëgg si yàlla moom keroog seetaan nañ ko teenee gaal gi mu bëri fa compétir ba yegg demi final ñu daan ko wante ba jël bañ ko daan sax mooy dalay leer na ne kii mbërikat la waaw ndax fañ koy yegg ba ba daan ko nga da nga xam ne ndaanaanu bërekat la mu ñuy daan jël bu rëy rek ndaanaan nga te bërekat nga ko mbër moo fi gis ñu daan la jël bu rëy champion nga champion kenn du ko daan jël bu ndaw waaw di ko di ko wax rek mu góorgóorlu yokk entraînement yi wax dëgg si yàlla gën a liggéey te xam ne ñun ci ginnaaw mbër la moo xam ne ni yaru na joxe na cër mbër la moo xam ne ni yaru na joxe na cër wax dëgg si yàlla li ñu koy ñaanal rek mu góorgóorluwaat lu mbër di am ci làmb jomb ko ndax tarbiyu na làmb te ñi muy àndal boo leen xamee xam ne ay entraînement kat lañ kii di garga kii di garga kii di nu mu tudd sax waay booy fay boo leen xoolee xam ne ay champion lañ ndax moom booy fay keroog biñ biñ daanee boo xoolee ñoom franc bi bi ñu tëb di wàcc ci géew bi sax tayuñu ko. wax dëgg sàlla demoon nañ ba làmb ci sax tuuti mu toj. Mm. wax dëgg sàlla tojoon na sax ba siis yu bari damm fa bañ defaraat si defaraat langue gi wax dëgg di ko ñaan rek mu yokk entraînement am góor góor lu waat te xam ne fi mu tàgg tàngam foofu la waaw. Cheikh dégg a waaw man moom awma dara lu dul ñoom rek comme ni ñu ko waxee rek waaw man maa ngi seen ginnaaw lañ bëgg laa bëgg lañ bëgg tamit man ma ko waaw gis ngeen nii la leen koy defalee ci wasaare làmb dinañ fekk ñeneen ñoo xamante ni bokk nañ ci làmb jël leen andil leen ko parce que ndaanaa ne bari na dañoo namoon làmb euh, li may wax chaque jour rek dañoo bëgg loo xamante ni dafay dindi stress dañoo bëgg loo xam ni daf ñu fàtte loolu bari lii nag bokk na ci li nga xamante ni jàmm la lu dul jàmm ak jàmmoo ko gën gis nga gars yi niñ nii marché dañuy bëgg lii làmb 100 pour cent parcelle bi ñu ci ginnaawam de waaw 100 pour cent parcelle bi ñu ci ginnaawam ñun parcelle lañ am parcelle ah <laughs> gis ngeen gis ngeen ni ma koy waxee marché bi gars yi duñ doyal ci làmb ndax làmb dafa baaxoo ñu def làmb samedi làmb dimanche xëy di xëy lundi nit ñu toog ci marché waxtaana ko ñi ñu toog ci jotaay waxtaana ko ba tax na ñii ñëpp euh, ci fans clubam wala ci ñi nga xamante ni ni dañ koy jàppale ci lañ bokk gannaaw nuyu naa la. fay nañ la bu baax a baax. ñi sant bu baax a baax. nag ñu ñëwoon seet si ki nga xamante ne mooy Cheikh Tidiane waxtaan ak moom ci làmb bëggoon ngeen jox ci ay conseils wala euh, jox ci ay kii yoo xamante ni dina ko mën a encourager. waaw man de de ma part seex bi ma koy xam. booba mi ngi làmb académique. ma koy wax sama gars yi ma naan leen man sama mbër mi ngi làmb académique ñu koy wax Cheikh Tidiane boobu ma naan mëneew ma wax boo waxee mën a la mëneew ma wax ma ne mbër moo xam ne boo waxee mën a la mëneew ma wax ma ne ko mais moom moo mun booy yim tollool yëpp. boobu ba léegi nag ñu koy topp booba xamante wuñu mais man waxuma la sax ci bëre bi mais ci jukko ji lay wax parce que Cheikh yorul jukkoy mbër parce que ñun mbër mun a jaar na fi fii mbër mu fi daan ñëw boo amee komba lañ lay gis soo amul combat duñ la gis Cheikh rek mooy mbër mi nga xam ne day mu am combat wala amul combat day ñëw di ñu bégee ñu ànd bokk lépp ñu nag moom wala mu làmb poosam ne jënd leen attaaye fii mbër mu fi jaar ñun ñooy làmb suñu poos defal la dara mais Cheikh musul am combat nañu gars yi jàpp leen ci musul am xanaa combat bi day jeex mu ñëw ne yi jàpp leen ci lii jënd ci attaaye kon nag ñu koy wax mooy li ñu wax rek man damaa jàpp ne kuy takk ngeem bu daa koo bëre Cheikh dama naan gars yi Cheikh ku ko daan da nga koo sàcc doole ñaari yoon waaye ku ko ëpp doole ñaari yoon mënoo koo daan muy champion nag ñu koy ñaanal yàlla mu doon roi des arènes parce que mbër la te la li gën a jafe ci mbër moom moom lañ gis ci moom mooy gore parce que mbër yu bëri ñaare mooy loolu buñ la soxlaa rek nga leen di gis mais buñ la soxlawul doo leen gis Cheikh rek moo ñu jaral nag ñun ñu tëj suñuy place dem seetaan ñun mooy suñu champion amuñu beneen champion bu dul Cheikh Tidiane waaw di ko ñaanal yàlla mu gën a yokk dem ca kaw ca kanam xam ne mbir mi moom kenn moomu ko liggéey rek moo koy maye te gëm nañ ne mi ngi ci te xam nañ ne làmb rek la yaakaar te ñu ngi koy ñaanal yi làmb teral ko comme ni mu teralee champion yëpp waaw. ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax. kilifa gi nuyu naa la. waaw sëñ bi ñoo ngi lay fay. Euh, du dégg ku ci nekk wax na xalaatam ñi wax nañ seen yéene yow lan nga ñu ciy dolli. waaw ñu ci dolli yëpp grand bi wax na ko. gis suñu grand njëkk nga xamante ni moom saa waay ñu ak moom ñoo nekk ci réew bi mu nekk suñu grand suñu lépp. ki nag nekk suñu champion kii moom ñun bu ñuy dund làmb waa ji moo tax ñuy dund làmb quoi. comme lu ñuy wax rek bu amee combat bu amul combat fii lay jaar di fi bàyyi tirangam moom ak sama yeneen gars yi ñoom Abdou ñoom Amadou te ñun buñ koy jàpp tamit ginnaaw yàlla tamit ñooñu la man moom sama mun maa wax ci moom daal daanaka lu bari parce ñoom seen gars yi ku ci soxla téléphone man maa leen koy jaay comprendre nga xebuñ ma ci dara dañuy ñëw am combat ñëw fi bàyyi fi xaalis bu bari sama gars yi au lieu que ñun ñu leen war leen defa jàppale de ñoom ñoo ñuy jàppale comprendre nga te ji xam nga rek programme mbër nu mu méttee xaalis bu bari lay ñëw éggati fi wallaay laas bi di ko bàyyi ci rii bi naa leen kii kii yorul ji ko mbër kii xol bi moom moo rafet mais nag yàlla baax na bu ko yàlla suñu borom fayee xolam rek lépp lu mu ci làmb dina ko am waaw ñu ngi bokkee sa Sirmang waaw kooku moom xolal sama sama mag ñoo bokkoon nekk di jàng foofu noonu ñu yàlla dogal ñu ñëw ba ma xamante ak moom fii si loolu laa ko gën a téye tey ay grand frère am ay rakam walaay lans bi mënuñoo romb fii tey bàyyi fi seen teranga te ñun tamit duñ def lu lu mooy di ko ñaanal rek yàlla suñu borom taxawal ko fu muy dégg roi des arènes ñu dégg ko fa leen rek lañ koy conseillé tamit dafa dafa gëm boppam bu gëm boppam boobu dafay confiance am moo koy ñàkkloo ci làmb waaw dinañ dajeeg mbër boo nga xamante ni dalay wóor na wóor la kii mun na ci génn bu teye rek mun na ci génn mais day yàkkamti boobu mooy confiance bi rek confiance bi loolu moom ñu ngi ko koy dénk di ko bàyyiloo xel muy dal ndànk-ndànk quoi bu teyee rek amul ku munul ku munul daan ci làmb waaw champion ñu ngi lay ñaanal fépp roi des arènes yegg rek ñu daal nañ tem toog tey bañ tey ba ñu indil tey roi des arènes loolu rek lay na ko yàlla na ko yàlla suñu borom defal yéen baax a baax di am kontaan seen si biiram yàlla na ko yàlla suñu borom dem ba indil ko télé ci ba si barke alxuraan karim yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def di kontaan ci yéen bu baax a baax a baax di kontaan champion bi jaageen jëf kontaan nañ ci yéen bu baax du ma ci yokk da loo ci yokk waaw ah gars yi jeexal neen wax bi rek noonu la defee waaw ñun moom luñ bëgg rek laa bëgg luñ bëgg am bëgg waaw maa ngi leen di sant bu baax di leen di gërëm ñoom ñëpp bàyyi ma kenn su ma limee rek damay juum waaw waa marché gi gis nga photo bi ñee lee ñoom ñoom ñoo ko liggéey fu ma amee combat yëpp muy loolu yaa ma gën a xam marché gi dañuy tëj lépp ñëw ba stade di supporter billahi ñoom daal mention spéciale quoi. gis ngeen gis ngeen nii leen leen koy defalee ci wasaare làmb li ma leen waxoon sànq rek ne woon naa leen képp koo xamante ni bokk na ci làmb wala képp koo xamante ni dimanche ba woon nga bokkoon ci ñi nga xamante ni euh, neexal nga bés ba dee leen fekk fañ nekk euh, jëli leen kii nag mooy euh, Cheikh Tidiane Niang di leen jox dig daje di jaajëfal sama cameraman bi Adama tey sonn waaye nag gis ngeen noonu lay demee di leen jig daje ba beneen yoon jaa ngeen jëf.